ce que vraiment xam nga école polytechnique Thiès moom kenn dootu ko présenté ci Sénégal école bu mag la formé na ay kàngam ay kàngam yu mag bëgguma sit bëgguma lim mais koo ñu fi jaar bëri nañu léegi nag euh, am na juróom fukki at te juróom fukki at vraiment donc kooku euh, am vraiment xam nga ne fu mu nekk ni vraiment c'est un grand tournant moo tax mënuñu woon ña mënuñu école mënu koon mënu koon ñàkk a célébré bon ministre moo waroon ñëw bëggoon na ñëw trop mais vraiment ay xat-xat moo ko jàpp léegi mu woo ma insister pour ma ñëw représenter ko fi parce que cinquantenaire bi ñu ko seere te kenn jógul ministère ba kilifa jóge ñu fa ñëw représenter ko loolu moo waral sama teewaay fii léegi nag école yi xam nañ ni ay ingénieur lay former yu xarañ vraiment yoo xam ne foo dem si dëkk bi rek ak si même même dans la sous-région yeneen dëkk yi gën a gis ñoo xam ne fii lañ leen former tey ñu ngi vraiment ñu ngi def liggéey bu am solo si dëkk bi moo tax maintenant ñu def bi commencé ko activités yi commencé ko par la science donc naam vraiment lépp lu ñuy liggéey seen recherche yi danañ ko exposé ñit ñi gis après ñu waxtaan si pour mun a am maintenant ay recommandations yu foor yoo xam ne danañ ko jox gouvernement bi ne leen ah ñun ko suñu xalaat gëstu nañu si lii infrastructure gëstu nañu si cybersécurité gëstu nañu si numérique suñu xalaat mooy su ngeen defee lii ak lii ak foog nañ ni dana amal njëriñ dëkk bi amal njëriñ Afrique amal ñu àdduna bi. daaw dañu tàmbali Euh, loolu nag comme dañ ko bugg saxal incha allah at bu nekk ñu def ko ren mu tom tombe ak euh, polytechnique di am euh, juróom fukki at ñu ngi ko poly ñu ngi ko sosoon 1973 mais juróom fukki at yooyu dafay laaj ñu taxaw doo wax ni def naa lii def naa lii def naa lii déedéet da ngay wax ni man fii laa toll fan laa war a jëm. Euh, euh, ndax lu ñuy def ci monde bi est-ce que man maa ngi ci loolu wala nekkuma ci nga xoolaat sa bopp pour xool naka nga mën a laxasuwaayaat nga nga laxasaayaat bu baax a baax pour mën a jublu gën a dem ci kanam waaye nga bañ a toog wax ni awaa ah, waaw man formé naa ay ingénieur ñu ngi fépp ñu ngi fépp euh, boobu foo dem fekk leen fa loolu boo ko defee rek lu ñu olof yi di wax nii ku daagu ku ku ku naagu daagu ku daagu ñu raw la loolu daal lañuy bañ mu dal ñu moo tax euh, saa bu nekk dañuy xoolaat suñu bopp jéem xool naka la ñuy def pour gën a mën dem ci kanam jërëjëf bon là d'abord euh, il faut parler et dire que vraiment l'école polytechnique Thiès donc euh, a été créée en, en 1973 donc la 50 ans que même euh, c'est quelque chose dans la vie d'une institution Et donc, cette cinquantaine sont célébrées. Et donc, euh, on connaît la vocation de l'école polytechnique. Donc, c'est une école de formation d'ingénieurs de très haut niveau. Et donc, il a formé des cadres à, vraiment qui sont actuellement dans tous les, donc, euh, au niveau Sénégal, dans tous les secteurs. Vous voyez donc les cadres qui ont été formés ici, donc, euh, donc qui, qui, sont au niveau de, tous les postures. Donc là, c'est une grande école. Et donc, donc former les ingénieurs, c'est sur la base de la science et de la technologie. donc pour le développement de notre pays et de la sous-région. Et quand on dit développement, on parle plutôt de développement durable. Donc c'est pour cela donc que le symposium cadre bien parce que ça vient donc, donc c'est la première activité de ces, cinquante ces, Et là, donc euh, c'est un symposium scientifique qui est très important, donc où il y a, donc des panels de haut niveau. Donc euh, ensuite il y aura aussi donc euh, des, ex, des expositions scientifiques. Donc euh, les, les, les, chercheurs et donc euh, les enseignants vont exposer les résultat de leurs travaux de recherche. Ça va susciter aussi des débats. Et donc euh, les recherches aussi sont axées sur les priorités donc, du Sénégal. Donc, euh, et la vous voyez, donc c'est pourquoi donc, euh, la raison de, ce symposium-là qui est très important. Oui, parce que là, effectivement, l'aménagement territoire, aussi, voyez, donc, euh, donc là, c'est pourquoi donc, euh, le ministère, l'État est, est, en attente des recommandations fortes donc, qui vont sortir donc, avec donc, euh, essayer de voir donc, comment faire donc, pour que, faire bénéficier donc, les fruits de la réflexion qui va sortir ici pour en faire bénéficier le pays. Ah merci beaucoup. Mais effectivement, aujourd'hui, nous avons profité de, du lancement de la deuxième édition du symposium de l'école polytechnique qu'on a initié l'année dernière. pour aussi euh, lancer les activités du cinquantenaire de l'école polytechnique. Et euh, effectivement, 50 ans, euh, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup pour nos pays, mais quand on voit à côté, donc, euh, entre des, des, des, institutions qui ont plus de 100 ans d'âge, ça doit juste nous, nous permettre de faire ce qu'on appelle une rétrospection de se remettre en cause et que ça ne soit pas une autoglorification pour voir maintenant euh, quels sont les, nouveaux, les nouveaux paradigmes euh, qu'on a au niveau donc, de l'enseignement supérieur et qu'on puisse au moins nous mettre notre école euh, pour, euh, sur les standards internationaux. afin d'avoir des produits qui vont répondre euh, aux exigences du monde nouveau. Oui, vous savez, au niveau, tout le monde sait, euh, l'aménagement du territoire pose un grand problème au Sénégal. Et nous avons jugé nécessaire donc, de reposer le débat et pour voir quelles sont les voies et moyens qui peuvent nous permettre d'apporter des début de solution. On n'est pas trop prétentieux. Hein. C'est juste proposé des, des, des, axes de recherche ou bien des, des, débuts de solution pour ce problème qui est assez crucial au niveau donc, du pays. Et euh, la cybersécurité, je crois que c'est un problème extrêmement sérieux. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de confidentialité des données, et il faut protéger les données, je crois qu'il faudra que les gens essayent de sécuriser toutes les données. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est à partir des données que le monde va se jouer. Euh, que ça soit dans le, sur le plan donc, économique, industriel, développement. Euh, je vous donne juste un exemple. Euh, prenons les données sur euh, les déchets. Si vous voyez, si vous faites une analyse de déchets, vous pouvez savoir euh, quelle est l'habitude des gens, qu'est-ce qu'ils mangent, quelle est leur habitude, quelle est la quantité de peau, donc, etc., etc. On a tellement de données. Est-ce que c'est des personnes qui sont pauvres Est-ce que c'est des personnes qui sont riches Etc., etc. Ça, c'est juste euh, quelques aperçus. Et si on va plus loin, on peut savoir même, donc, même certaines maladies. Est-ce que c'est est en faisant une caractérisation même de ces déchets voir à, ah, euh, est-ce que certaines maladies ne proviennent pas donc de l'alimentation. C'est tellement donc sérieux et une fois que cela est maîtrisé, euh, donc on pourrait même faire une corrélation entre donc euh, l'économie parce qu'aujourd'hui si tu parviens à réduire, parce que une fois qu'on sait que telle chose euh, peut créer des maladies, etc., on peut l'éradiquer. Et en éradiquant donc euh, ce, ce problème, en changeant de la façon d'alimentation des gens, cela peut nous permettre d'économiser énormément sur la santé. C'est juste des exemples comme ça. Alors ça, un exemple. Mais il y a d'autres euh, donc données qui sont vraiment stratégiques pour le pays. extrêmement stratégique. Donc on ne va pas donc, en dire plus. Donc il y a les gens qui sont beaucoup plus aptes que moi à, à développer. Mais c'est juste pour vous donner déjà un aperçu de ces types de panels que nous avons donc choisis.